télévision bu Sen TV bu Bougane Gueye Dany moo di Cheikh Oumar Tall moom mu mel nag daal di ko xam ne rek moom chroniqueur bi rek ñu gënoon ko ràññee ci émission Ndoumbelane ak Grande Gueule daal dina annoncé rek démission ci groupe des médias bu Bougane Gueye Dany loole nag toftalu ci démission bu kii di Serigne Saliou Gueye ak Abdoulaye Mbow ci benn semaine daanaka ñoom ñett ñi ñëpp daal di jógee ci kër bu nu mel moom chroniqueur bi nag xamle rek euh, def ñu ko def au frigo loole nag gannaaw boo xam ne am na ko ca France donte la sax ba muy demat daal bind rek li nga xam ne moo di direction des ressources humaines xam leen ne moom mi ne daal a tukki jox leen ay justificatif ak motif waaye nag ba mu daal ci la gisee rek ni ñu ko dindee ci programmation émission yu nu mel moom nag mu woote laajte waaye nag ba mu gëstoo ba gëstu mu xam ne rek moo di ne daal kilifa yi ñoo daal di jël dogal bu nu moom mi sax di xamle rek ne ci ab émission boo xam ne rek amoon na ko ca grande gueule daal di ci gite ay kàddu di wax ne nag bipolarisation boo xam ne am na ci langue politique yi diggante Macky Sall ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. ca nu ne nag njiit la di Bougane Gueye Dany daf ko message gannaaw émission bu nu mel na ko nag na bàyyi wax li nga xam ne moo di bipolarisation di tudd Ousmane Sonko Macky Sall wax rek li nga xam ne moo di tripolarisation ki yu nu yoo xam ne moom Bougane Gueye Dany moo ko wax mel ni rek ku bëgg am orientation ci li nga xam ne nag moo di waxam na muy waxeek lu nu mel ci émission loolee daal moom mii di Cheikh Oumar Talla moo ko daal di xamle ci émission boo xam ne doon na ama rek ni ki tey jële foofu nga xam ne rek moo di ca sans limite xam ne nag moom mi le jël na akub décision jugee ca kër gu nu mel ndax nag moom daal li mu gëm rek mooy li nga xam ne moom lay wax gëm-gëm lay wax yàlla la ciy seet waaye seetu ci lu neex kenn amul Ousmane Sonko du Macky Sall du Bougane Gueye Dany mi nga xam ne tey jëlee moomoom kër gile doontale sax mu ngi koy sant di ko gërëm ndax nag yàgg na depuis 2017 ba léegi mu ngi ci kër gu nu mel waaye daal dem na ba gisatu rek la nga xam ne moom la xam bu demee rek ba daal li nga xam ne moo di gëm-gëmam dañ ko ko bëgg wax naan ko ni ngay waxee gi nu mel moom daal la ko gën rek moo di lem ay bagage dem te mel ni rek noonu la ko defee muy kon ñetti doomu aadama di Serigne Saliou Gueye Abdoulaye Mbow euh, bi la yoon kii di Cheikh Oumar Talla ñoo xam ne rek war nañu ginnaaw kër googe di groupe euh, des médias bu Bougane Gueye Dany jërë ngeen jëf mbokk yi li mënoon xibaar ci bile vidéo yeneen ci yeneen vidéo bu ci lande laata loolu wéy leen di like di abonné ci chaîne chaîne ku déggan di page bi tabale go ñoo ngi ñaan nga abonné activé sa su ko defee dugg ci bi donc box ñu koy njëkk a jot cant ngërëm ñeen na leen jërë